Amis téléspectateurs c'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve euh, ñu ngi fi nga xamante ne mooy mooy grand théâtre ñu ñëw nag euh, daal di fekkee ci conférence de presse bi nga xamante ne moom la comédien yi di def parce que ñu ngi fas yéene organiser benn événement bu mag ñu daal di ko euh, dikkee dippee wala ñu daal di ko bàkkee Dakar fait sa comédie ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy ci esplanade bi ñu dem xooli ji gars yi nga xamante ne ñëw nañu ñu déglu seen réaction ñu daal di dugg ci le vif du sujet naan namu naa la. naka waar gayen. naka dóor waaye sant yàlla gayen. gëj a gisee. waaw gëj a gisee kay yaa ma bàyyi gayen. lépp cool la ngeen waajal événement bu rëy. Hmm, ngeen di uh, fas yéene daje fii tey. Hmm, lu waral événement bi. waaw événement bi de événement bu mag la mooy Dakar Fessa Comédie eh, muy comédiens yi nekk Europe ak nekk fii yëpp ñu nekk ci. Sénégal yëpp dañuy ñëw mu nekk boo xam ne bu grand événement la bu mag a mag gars yëpp dañuy ñëw waaw émorsi yëpp génn yaa ngi gis ni gars yi saf xorom ngi ni toog mu nekk lu waaw lu nar a yéeme daal waaw en tout cas. avant ñoo dugg ci vif du bëgg nga may téléspectateur yi lay seetaan ci tàng tàng bi dara. Ah, <laughs> ma may leen benn affaire ah. <laughs> ah damay bett nekk. ci la bokk reetaan ci la bokk. lii rek aar la. lii aar la non aar makk bi rek. defar noonu. événement bi nga xam ne moo war a am fii le 2 novembre loolu lu yéeme la nekk. maa ngi siy waxtaan nag soxna Maram ni ko sœur mu ne naam ma ni ko est-ce que xam ngeen ne le 2 caay ji ma dencoon génneel ma ko dama war a dem grand théâtre yëngal. <laughs> loolu nekk loo xam lu am solo lay doon vraiment di wax la doo daal di yomb dina mel ni bator gi ma demoon demel koo fi dëgg ne mas maa ngi si biir a biir <laughs> <laughs> alors salaamaaleykum champion maa ngi siyaar. waaw yal na yàlla nangu siyaar. Ah, nu mu demee noonu yaa ngi mooy reetaande. non dara commencé gul nga may. <laughs> waaw waaw gis nga rek euh, kontaan rek kontaan ci bis bi waaj ñëw quoi. waaw comme ni ko ci Cuxu waxee émoriste yëpp ay génn ñi jógee France ak ñi nekk Sénégal comprendre mu doon événement boo xamante ne nii képp ku feebaroon manqué reetaan. bis boo ñëwee le deux. waaw allahu rabi faju kon dafa am feebar boo xamante ne reetaan. waaw c'est parce que feebaru goitre goitre goitre manqué reetaan koy waral <laughs> acca acca reetaan lañ ñu xool <laughs> baaxul. Ah, waaw tuuti lay que moom nag. Euh, mënul wax quoi dafa handicapé vocal waaw. moom la may waxee moom kon. kii da grand il faut nga am patience dëgg pour mën a wax ak moom. non man sunu <laughs> sunu batterie day jeex. ah waaw acca <laughs> acca booy wuyul booy. waaw sëñ bi ñu ngi leen di ziar. waaw ñu ngi sant sant bu wér. tey tey tey la deux. le deux mel ni mbaxlu mbaxlu banaana. ndax ngay ngay lekk rek muy def direct di génn ay ay le deux ku ñëwul moom aw appale sa àdduna moom doo doo dootoo ci ree dootoo ree reetaan yëpp dañ koo dajale le le deux le deux waaw kay le ñëw incha allah <laughs> kon gars yi waxoon naa leen bu leen ma fi indi ñu dugg ci biir mbokku téléspectateurs yi xool lan moo ne ci biir également comme ni ko gars yi annoncé ñi nga xamante ne jóge nañu à l'extérieur ñëw fas yéene bokk ci li nga xamante ne moom mooy événement le 2 dakaar fait sa comédie voilà mbokk yi ñu ngi taxaw ak monsieur la xaaral ma laajte ko ci olof ba pare na nga def. asalaamaaleykum min moi wolof min ko mi haalpulaar 100 pour cent. waaw waru seese. ay ah ok. waaru seesa ni weere a bon nana pular no feewi a nana jolfo nanan jolfo hmm. babam ko halpular nenam mais a salminta e euh, jolfo sah seeɗa jolfo eh. waaw waaw assalamu aleykum boy lumu deme <laughs> que ça <laughs> que <laughs> ça va bien alhamdoulilah on est arrivé hier soir hmm. hier soir alhamdoulilah bien passé Dieu merci Et comment vous voyez euh, Dakar c'est toujours chouette. Mmh. Dakar, c'est tu donnes rendez-vous à 10h, les gens Dakar, c'est comme ça. Il faut, il faut régler ses montres à l'heure de Dakar, mais sinon, c'est très bien. Non, non. En France, c'est pas comme ça. Mmh. En France, 10h, c'est 10h. Dakar, 10h, c'est 13h, 14h. alors vous êtes là pour un événement que vous allez euh, euh, organiser le 2. alors vous euh, nous en parler un peu. alors ça s'appelle Dakar fait comédie c'est la deuxième édition. Mhm. la première édition c'était il y a deux ans à peu près ça s'est très très bien passé et mais cette année on a misé sur les artistes locaux mhm. les artistes locaux, les artistes qui sont en train d'émerger en ce moment au Sénégal, Jao Ketchup, Singom, euh, fait des vidéos, toute cette nouvelle génération d'influenceurs et tout ça qui on a misé sur ça et je pense que ça va le faire, Inch'Allah. Alors, c'est un événement qui doit durer combien de temps Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, comment dirais-je, euh, d'artistes euh, qui vont y ouais. participer. Ouais. Il y a à peu près une vingtaine d'artistes oui. et ça va durer, euh, c'est un show qui va durer trois heures. Il y aura du chant, il y aura de l'humour, il y aura de la danse. C'est vraiment un show euh, multiculturel. Multiculturel. Ouais. Alors, euh, est-ce qu'il y a déjà euh, des répétitions qui, qui, qui, qui, qui sont, vous avez, oui, qui sont en cours ou... Pas encore, on n'a pas encore fait les répétitions. Je pense qu'on va commencer à partir de cet après-midi ou ce soir. Et les artistes ont déjà répété leur sketch chacun de leur côté. Mais je pense qu'on va faire peut-être une répétition générale euh, avant le show ou le jour même du show dans l'après-midi. Euh, eh j'ai envie de vous dire, les gars, le 2 novembre, faut venir. Si tu n'as pas d'argent, ah, faut emprunter à ton ami. Faut venir. Tu ah vas louper. Ah, si tu viens pas, tu loupes. Tu, Mais pas volé. Faut demander mon ami. Demande à Wally, il a l'argent. Il a l'argent. Mm -hmm. Mais tout le monde ne peut pas aller demander Wally. Ah, dites que vous venez de ma part, il va vous accepter. Tout le monde. Tout le monde. Tout le Sénégal. Tout le Sénégal. Même la Gambie. Même la Turquie. <laughs> euh Shungo Mangok ak euh, ki nga xamante ne mooy général. Sa waaj maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. sànq il s'appelle euh, comment encore le monsieur Tombola il dit que da ngeen war a régler d'une manière générale seen heure ci heure Dakar parce que euh, vous dites euh, vous nous donnez rendez à 9h mm-hmm. et vous êtes là à 13 mais nous nous sommes ponctuels parce que nous sommes là à 8h. Mm. waaw waaw 8h. vous deux. vous deux vous pouvez pas je sais pas yéen rek doyul. ah waaw mais bon xam nga man ak moom comme que ñooy fanaan ñooy defandoo lépp donc waaw buñ ñun ñëpp la koy defandoo moo tax foog ñu teel a ñëw. ñooy def mu ñuy sangu bu ñuy sangu ñooy sangoon loolu. yow ville nga nekk ki nekk banlieue. waaw yow da na lool léegi. connexion bu la bon yow yow yëgoo lu xew. <laughs> général bàyyi bu ma fontoo leen daal laa xam duñ ko bokk maak moom bu gelam ñëwee nii damay génn bàyyi foofu moo gel bi man sama gel bu ñëwee day génn bàyyi maak sama gel mais lu des lépp ñoo koy bokk. mais man li ma jaaxal yow. banlieue nga dëkk. ñëw naa ñëw naa fa def nañ fa ay affaire ah. kii dëkk ville. Ah. léegi noo leen di sangu noo leen di bokkee. application bees bi. da nga ko da nga ko téléchargé wul boo duggee léegi app store wala fële play store da nga koy am application bees bi day xëcc nit ñaari xarit da di boole nii ñu defandoo lépp benn problème. waaw d'accord di waajal. le moom sawaay ku ñëw toog ci saal bi di nga ree ba génn di jooy. ree ba énervé ree ba mer jël chaise grand théâtre di di ko dóor humoriste yi. loolu laa la ci waaw li ñuy waaj rek. nan ngeen gisee nan ngeen gisee ren hmm? ñu impliqué leen ci ngeen santir ci seen bopp bu baax a baax a baax sentir nañ ni yéen euh, jeune euh, comédiens yi euh, bokk ngeen ci ak doole noo leen koy noo ko dundee. ah ñun de boo bëggee dégg-dëgg bu nekkoon lii mbër làmb laa. dama naan lii mbapat la de. waaw si mbapat lan nekk nii di def ba tey parce que fu ñu teg suñu bët egg eggaguñu fa te incha allah rabi dinañ fa egg saayira parce que yëpp ay. publicité laa koy jàppee man defaguñu dara mooy maanaam yàlla moo na nattoo sénégalais yi teel noo xam ñi naan singoom ñi général mais liggéeyaguñu lu tax ñu naan liggéey man xam naa lool moom xam na lool te yàlla seede na ko waaw. mais actuellement lan mooy euh, euh, euh, deal bi yéen a ngi def ci yéen a ngi ci répétition yi parce que carrément dañoo war a gisaat beneen facette événement la boo xamante ne à l'international aussi gars dañ koy dañ koy bàyyi xel. waaw fii nii tey la dëbb la dara bett bu général seen di làkk ay indo ba sax bu leen bett. ay tabari baari xéew ak yëpp di ngeen ko dégg le deux incha allahu rabbi man. man le deux bu ma taxee di làkk espagnol bu mu leen bett te bu ma énervé mun naa yee micro bi yéeyaale caméra bi parce que dama instant yi damaa pare bu yàgg parce que mun naa taxaw à tout moment naan astalaama ñaana de favore d'espagnol di làkkati barbari tutta Dakar fait sa comédie. waaw lu mu laaj dañ ko ciy def amul leneen boo amee beneen question nga jox ma ah, ah ja baax na rendez-vous bi le deux ngeen ñëw entrée bi ñaata la cinq mille dix mille vingt mille dañ leen ko yombalal nag wax dëgg ah, am na lépp lépp am na fi lépp boo boo bëggee bu un million sax mun nañ jël bu cinq mille jaay la ko un million te amul <laughs> lépp loo bëgg xaama saw ñëwaat <laughs> bon sa ça ça moi je dirais que ñoom euh, dañ ko mérité ah parce que tey bu ñu demee ba tey ñu jël artiste locaux ça veut dire ñu ngi def lu nice parce que fii ku deful lu nice duñu la fi indi donc euh, artiste locaux man bugguma sax ñuy wax artiste locaux quoi un artiste un artiste man noonu laa jàppee artiste quoi amul local amul international genre artiste moom fa moo na nekk nga nekk Kédougou Banjul Koumpentoum artiste nga donc booy nañ ñëw wane li nañ ootee fii tamit comprendre nga wane jom ful ak fayda booy tàng nañ de te samedi di. bon <laughs> gannaaw ma euh, alors mu nekk événement boo xamante ne bu la war a doon ah. mhm. alors euh, en tant que artiste gis nañ ni ngeen ngeen ngeen def yu bëri. Mhm. te yu bëri war war leen ñu war a war leen xaaraat ci euh, ci ci yu bëri alors inspiration bi ni muy demee. Mhm. vous n'êtes pas à bout d'inspiration wala. non mënuñu nekk à bout d'inspiration parce que comme ni ma ko tàmm waxee rek li ma taxaw di wax ak yow rek am na see idée. d'accord. comprendre nga donc loolooy artiste quoi lan mooy artiste artiste léegi boo demee ba mënatoo artiste nekk to artiste comprendre waxu mag la quoi donc je pense que abbu mënul am quoi parce que tey boo ñu yoon trois heures du matin teg ñu si kaw scène bi ñu taal gis gars yëpp dañuy parce que loolu la ñuy dundee yow tey lii sa passion la poser question et tout ça da nga ko mën moom nga maîtriser macha allah ak leneen ak leneen donc ñun tey ay artistes lañ loolu la ñu maîtriser abbu moom xanaa peut-être ñu ñàkk wér gu yaram yàlla si yàlla musal yàlla na yéex. wala ñu dem ba nga xamante ne cër yi mënatuñ. maa ngi maa ngi maa dégg sànq ci sa biir wax sama collègue bi di la ko wax di la wax ni euh, à l'international parce que ba ngeen produire un ci àdduna bi mais est-ce que langage bi du def barrière. par exemple gis nañ fi yaa ngi koy wax sànq am na ay artistes yoo xamante ne bari nañu talent lool mais est-ce que langage bi du def barrière. bon bon ça c'est c'est possible ah c'est possible je dirais pas non parce que man sama cas quoi man sama cas man mun naa am problème boobu parce que. Euh, léegi maa ngi maa ngi jàng anglais sax juste pour te dire que comédie jaral ma loolu on sait pas kañ la why not kañ laay xëy rek dem États-Unis wala genre yooyu parce que de base man jàng naa ba def sama ma am naa master et tout comprends nga donc peut-être pour kii may seetaan di eggul niveau de dem eggul foofu bu mu mënee lu mu si mën a ga il est jamais trop tard mu dem jàng tubaab. wala dugg si anglais parce que léegi Google sax boo duggee mu expliquer la nooy conjuguer verbe yi ak yooyu te méttiwul te humour dafa nekk loo xamante ne boo defee faute sax dina non comédien la. boo boo neree jigéen nga ne ko il. waaw dana ah comédien la. comprendre donc tey loolu force la quoi. ku ci mën a dem jàngaat nga jàng ci mais je pense pas que mu nekk barrière parce que man génn naa Sénégal dem naa Parlement du Rire war naa gars yi que damay def ay vidéo ay caméra cachée mais sur scène aussi je fais du stand up donc yeneen locaux yi. dégg nañ ko foofu ah. moo tax li ngay wax foofu dégg nañ ko français nga doon làkk. waaw waaw donc juste pour montrer aux gens parce que ba ma yeggee Parlement Diourbel man quand je me suis présenté ma ne Séné ma du Sénégal ñu eh, un Sénégalais genre que Sénégal Sénégalais tey war na mën a ñëw foofu. Hmm. tu vois donc pour wax artistes locaux yi artistes yu ndaw yi artistes yi nga xamante ne bëgg nañ tey egg comme nañ egguñ fenn mais bëgg nañ di voyager wala genre nañ commencé gëstu Molière. di laal ñoom Trump ak yaa ma a la <laughs> ñuy lan la le 2 lan la ñuy xaar concrètement le 2 téléspectateurs yi leen di seetaan a mhm. le 2 di denc. Euh, le 2 moom dina am caméra cachée en live. waaw caméra cachée xamante ne xaw ma ku ñuy caméra cachée si koñ bi waaye si salle bi wala genre mais dina am en live. gis trois facettes. man ci vidéo damay caméra cachée si scène damay stand up comprendre nga. Mm. ci vie naturelle dama koy gérer. donc artiste da nga war yaa ma gën a xam quoi comprendre nga. da war a bëri facette xam ni ngay doxalee xam ni ngay demee ak genre yooyu. mais le deux on invite vraiment toute toute la population sénégalaise on invite tous les artistes on invite tous les humoristes tous les. bàyyi ñu sax xoolal. fête la fête la bàyyi ñu sax bu Macky Sall mënee sax gracier ñi nekk sama xel day dem si ñoom lu bëri ñi nekk 100 mètres bu gracier ñëw seetaan reetaan yàlla baax na quoi. jaajëf <laughs>